alhamdulilahi rabbil aalamiin arrahmaani rrahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina s-siraata l-mustaqiim siraata llaziina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ñu ngi nuyoo bu baax di jiital nuyoo bi ci kilifa gi di ko sant bu baax ci taxawaayam ci mbir mu rëy mii ba mu tàmbalee ba léegi mi ngi ko ànd ak nun ñu ngi leen di seereel sunu kent ak moom ci liggéey bi kon jërëjëf président taxawaay bi gis nañ ko ci wàll yépp ñu ngi koy yàlla muy faye yàlla na ko fay ci barkeb Sëriñ Tuubaa gannaaw loolu ñu ngi sant bokk yi ñi nga xam ne dañ ñuy boole di tudd di tudd sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ñëpp ñoom ñëpp ñun ñëpp bokk nañ ko ànd ci biir ak ci biti suñ lépp nag ñu jiital ci liggéey bi kon noo ngi leen di sant bu baax la di sant nag mboolem taalibe yi kenn desul ki yaakaar ne moo ci gën a fegg ak kañ foog ne moo ci gën a kawe ci mboolem bokki taalibe yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax gis nañ yéene ji nga xam ne am ngeen ko ak pastéef bu wér bi nga xam ne am ngeen ko ak itte ju rëy ji nga xam ne am ngeen ko ànd ngeen ko ànd ak nun tàmbali liggéey bi ba mu agsi fii tey loolu amel nañ leen ci cant gu rëy di ko seereel boroom liggéey bi rek jëmmi fii ñu toll nii tey tolluwaay la boo xam ne dafa aajowoo ñu gën cee yeesal sunu jaayanteeg sëriñ bi di ca fedd li suñuy laxasaay fas yéene gën a taxawu liggéey bii ku ne xam na liggéey bi ni mu meloon liggéey bu réy la caaxaan eggalewu ko fii mu egg rawatina nag ci li nga xam ne moom lañ jëm ndax li ko eggale fii ab tàmbali rekk la itte ja koy saytu mu bañ a dellu gannaaw loo jooju itte mooy li ci gën a am solo kon nanu ko itte woon rek tàmmee tàmbalee ni àndeeku ni kon yaa yoon waa ngoog nan ci gën a def yitte bu baax a baax a baax ndax li ci war lépp ndax dara bañ cee sooxe dara bañ cee taxaw ni ko borom bëggee woon rek jërë ngeen jëf nu ngi gën a santaat président ci taxawaayam ci niñ ko waxee woon rek biñ tàmbalee liggéey bi ba ni mu egsee fii noo moom noo ko ànd nu mu gën a diisee ak nu mu gën a sellee ak nu mu gën a rafete noonu rek lañ ko ànd ak moom nun la ko defee ak nun ñu kon nu ngi koy dollee sant di ko gërëm bu baax di sant nag mboolem bokki taalibi yëpp alhamdulilah rabbil alamin kon léegi nag nee ñu jox kàddu gi sëriñ bas mu eggale mu eggaleel ko waaw jërëjëf kon dañuy jox kàddu gi Cheikh Mamadou Bassir